je vous remercie. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de l'opportunité de venir célébrer à nouveau la fête euh, de Korité parmi les miens. Profiter de ce mois de pardon et de miséricorde pour euh, solliciter du Seigneur qu'il nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. solliciter qu'il déverse sa miséricorde et sa grâce sur le peuple sénégalais et sur toute l'Afrique, sur toute la Oumma musulmane et euh, sur le monde entier. Je voudrais en second lieu exprimer toute ma compassion et toute ma solidarité à l'endroit des populations durement éprouvées, que ce soit par les inondations, les délestages ou même les jeunes qui recherchent désespérément un emploi. Cette euh, solidarité qui a été au cœur euh, du sermon de l'imam, qui comme toujours est une source inépuisable d'enseignement pour embellir notre euh, conduite. Je voudrais donc euh, très fortement exprimer ma solidarité à l'endroit de ces populations qui souffrent euh, des inondations, qui souffrent de délestages, qui souffrent de la cherté de la vie et qui souffrent du manque euh, d'emploi. Et prier en dernier lieu pour que l'espoir revienne le plus rapidement possible pour que les cœurs et les esprits s'apaisent. Je vous remercie. la réaction est que nous nous employons avec euh, énormément de rigueur à ce que la commission, puisque ce n'est pas la mairie, la commission en charge des questions foncières fonctionne suivant des principes de transparence et d'équité. C'est tout ce que nous avons à dire sur cette question. jërëjëf nga may ma d'abord ma sant yàlla bu baax bi mu ñu baaxe ñu mën a ñëw euh, fii ci Thiès feetewaat feetu korité di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ni mu ko waxee weeru koor weeru njëggal la weeru yërmande la di ko ñaan njëggal loolu ak yërmande boobu mu xëpp ko jullit yëpp xëpp ko peuple sénégalais yëpp peuple africain bi yëpp ak umma bi yëpp di euh, wax rek ne yëg naa bu baax a baax a baax coono yi population yi nekkee ni ko imam bi waxe moom toujours euh, xutbaam dafay doon am njàngale moo xam ni toujours di nga ci mën a jukkee loo gën a defaree sa jikko loo gën a defaree sa nekkin ak sa doxalin digganteeg doomu aadama yi solidarité boobu moo war suñu diggante surtout ak ñi nga xam ni ñoo ngi ci coono ak jafe-jafe yu tar moo xam jafe-jafe dund la moo xam jafe-jafe mbënd mi moo xam jafe-jafe ñàkk liggéey la moo xam jafe-jafe délestage yi di ñaan yàlla rek mu jàppale Sénégal jàppale peuple Sénégal ba yaakaar dellu siwaat ci ni mu gën a gaawee puisque mbir yi tar na bu baax a baax a baax ci nit ñi tout à waaw wax na li li li mu ci wax kenn mënu cee dolli dara corruption muy ger dafay yàq société dafay yàq jikko yi dafay nasaxal koom-koom puisque bu fekkante ne euh, Ousseynou mii moo la dàq def li nga li ñu la jox yow ñu xañ ko ko parce que yow am na loo loo joxe pertement bu rëy rëy la ci société bi loolu économiste yeeg sociologue yeeg philosophe yi ci àddina bi yëpp dañu ci ànd d'accord mooy li ñu war a njëkk a xeex te comme ni mu ko waxee rek li ci jiitu mooy defar jikko yi ba nit ñi ragal yàlla xam ni alalu àddina bi poñet la rek mu ñu fi bàyyi puisque ku ci nekk ci ñun

benn nit parce que néew na doole wala parce que loxoom guddul wala parce que amul pexe yu mu jaare teggi yoon wi ba am loo xam ne lii yayoowu ko euh, wala ñu xañ ko loo xam ne lii yayoo na ko donc euh, li mu wax aussi ci wàllu drogue bi loolu fléau la bu rëy rëy rëy puisque day détruire sunu jeunesse day détruire xel yi day détruire sécurité bi ci ci ci réew mi te xam ngeen ne état narcotrafiquant yi am nañu fi muy tàmbalee toujours mooy en général ci sécurité ñuy ware kaaraange gi moo xam police la moo xam douane la ba egg egg ci kaw loolu musiba la ñoo ngi koy jiiñ yenn ci état yi ñu wër euh, yàlla na yàlla def mu teggi Sénégal parce que loolu day détruire stabilité moo ci gën a gaaw ci détruire stabilité mook terrorisme euh, la ñuy méngale en en général mais état narcotrafiquant moo gën a moo gën a dangereux loolu loolu loolu yàlla nañu ci mooy mooy mooy li wax loolu mooy mooy mooy danger bi foofu lay tàmbalee ba gangrené tout l'appareil d'État et détruire la stabilité et la sécurité dans notre pays. jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup. fu ci man jiitoon nag dafa yomb ndax suuf suñu xëy rek jox la ngay duufal te joxoo mu lekk joxoo mu naan mel ni koy xarul laa moom di xaar njëg gu neex ki yor xarul sax xont lijjal na ko te ñii koy nangu ci ñoom dàpp ñu leen a dagg ay parcelles. gënu leen a xam client yi gënu leen a gënu leen a man yegg ci multinationales yi gënu leen a gën a euh, bëgg xaalis xala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahmara ardan laysa li ahadin fa huwa aqaqu celui qui exploite une terre qui n'appartient à personne a plus de droit que qui que ce soit yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na képp koo xam ne kii yaa ngi liggéey suuf su kenn moomul yaa ëpp àq ku doon moo tax audit bi am solo lool moo audit yi suuf si ndax moom source de conflit la te ayam gaaw la jeex gis nañ ko ci ay réew ba tey ay cinquante ans ma koy dure te lii jëmawul kenn fenn te noppalu waa réew mi te yii coow lenn rek moo ko waral mooy bëgg xaalis ak bëggee bu ku nekk bu lu nekk ba lu nekk nag nga bëgg ko ak i ci lu yomb nag cupidité rek la cupidité est un état de l'âme qui incite à l'accaparement et à l'accumulation des richesses au point que celles-ci deviennent l'axe et une préoccupation principale bëgg lu nekk ci nit la da koy wommat ci akinoo ak ci dajale alal ba loolu mooy nekk yitteem di gën a màgg te bëggee bu la xësee ba dal dootoo te dootoo jéem a xàmmee lu dagan ak lu daganul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaati ala naasi zamanun laa yubali almaru ma ahada minhum am min alxalaali am min alxaraami alayhi salaatu wasalaam nee na jamono dina mas a dikk nga xam ni nit ñi duñu xalaat fan la seen alal di jóge seetuñu ci mu lew ci dagan seetuñu mu lew ci xaraam ñoom daal nañu ko am rek ak nu ñu ko amee yaa xam dafay sàcc yaa xam dafay fen ak di njublam bañoo ci jaay drogue di ci lor askan wi mbaa lu xaraam lu mu mën a doon nag bañoo ci jar mbaa ñu la ci jar bañoo ci riba ak bu mën a doon yow daal na nga am rek bu yaboo mu yàq société bi bu yaboo mu rey nit ñi xam nga li musiba la lii nag ci ci ger corruption nga xam ni fléau bu doy war la ba tax na kenn noppiwu ci waaye lu jaral rek léegi nii ger moom day jox day ger moom da joxe ngir sa biir yomb te gaaw ñu jox la ci lu dul yoon ngir ki nga seqal mbiram gaaw te yomb ger ki soxla askan wi nekk ci loxoom lañ ko gën a séntu moo tax nit ak nit danañ ko defante waaye li ci ëpp état dina ko organiser. ci li mu yëg ak ci li mu yëgul xoolal marché gré à gré bu mënul a ñàkk bu mu tasaaroo mooy lan marché gré à marché yaa ma neex waaw naka laay def ba neex la ci samay biir moroom ger dana am su fekkee l'offre de service est très insuffisante par rapport à à une forte demande xoolal réew mu tollu Sénégal benn centre de cancérologie nekk fii paj mi cher lool ba jéggi dayoo ay millions malade yi doon las personnel bi dépassé mu am ci nag ñoo xam ne ñu ngi def te yàlla tax ba ñu naw lañ ci seen liggéey nga ñëw ñu ne la topp ci rang bi sa rendez-vous war a yàgg lool pour une maladie qui évolue hein et qui ne recule pas et qui tue <laughs> boo gisee ku la ne mën naa laa defal li nga bëgg ci kër gu mu rek tuddee ko clinique sans enseigne il travaille dans le noir après avoir coxé des malades à l'hôpital nga jox ko la nga am. te li ngay faj du faju ñu miraas la te ci foo war def analyse ñu ne la réactif sangam amul appareil sangam dafa paan demati feneen fayati fi loolu ak loolu lii yëpp ay xeetu guerre la te dara waral ko nag lu dul li waroon a am fépp ci lu yomb nekk fen rek cher fa lool te kat ñu topp sida bi rek di ci def alal ju dul jeex te fekk ànd nag mooy man koo moytu moo tax. ndimbal war naa feeñ ci ki yor métitam te war a jógee fu sori moo xam Matam la moo xam Tamba Ziguinchor wala feneen fu mu mën jóge te ñu ne ko sa métit bi fenn rek la mën a sedde eh. ndeke foofu nga jëm foofu la mburu mi di xoyam xoyamee tàng jël moo tax système médical bi ak li ci xew ak yeneen secteurs yi oh lu mat a la gis nga ndimbal nekkul ci wut alal ci mettitu nit xam nga kii lal ay pexe ngir am alal ci borom métit gumba na te gisatul lu kon nit ki war naa fegu dimbali boppam ci li muy fagu di ko dunde yàlla mu kawee mii mu wax ci ak ñun ci téere bu tedd bi xaala tabaraka wa taala yaa ayuha allazi yaa ayuha annaas kulu mimma fi lardi xalaalan tayiban wala tatabi lakum aduwun mubin fii yàlla subhanahu wa taala woo nit ñëpp mu ne lekk leen ci li nekk ci kaw suuf li nga xam ni moo ci teete dagan te bu leen topp tànku seytaane ndax moom seen noon la bu biir woote bi yàlla jëmale ci nit ñi nag war naa tax képp ku am xel xam ne nit war naa téye boppam fexe bay lekk lu teete dagan ba a mel ni bàyyi ma nga xam ne xàmmeewul ñamu mbalit ak ñamu wu sell waaye dañuy dégg ci aaya bi ne nit ñi nga xam ni dañuy jaar ci seen kaw moroom yi di foqati la ñu yor ci fexe muur maanaam doon nag di ko dundee mbaa di ko dundalee seen njaboot na leen wóor ni tànk yooyu tànku seytaane la te du dugg aljana képp ku fargu alal ju ci ger ci riba di ko dundee na yaa ngi boole sa yaram ci yaram yu yàqu ya kon yow bu yaakaar mukk ne alal ji ngay nga am di ko dundee di ko dundee sa njaboot day tegtal na yow ku nga waaye dangaa war a yëg ne yaa ngi sànq sa bopp di sànq sa te faw yàlla wan la cànku dëgga nga di ko dund balaa yowmal qiyaam moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu jasadin nabata min al suxti fa naaru awla bihi yonente bi alayhi salaatu safara mooy yell ci moom gis nga yàlla moo bañ jullit bi di feesal biiram ak sobe moo tax yàlla xaramu ci moom jëfandikoo baax te nga xam ni lu yomb la surtout ci banque yi boo lekk lekk client bi ci façon bu jéggi dayoo te mënoo ci dara ndax day mel ni ndimbal heure bu ñu lay defal te fekk yaa ngi ci loru ndax li nga am doy na nga dëkkee di découvert finalement tu découvres que tu es dans un trou profond et couvert dootoo génn kon nag. yow jullit bi yaral sa bopp ci doy te jot doylu li nga am façon xeesu am xeetu alal yi rek nii rek la gerte di rek xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la an allahu rashi wala tashi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yàlla rëbb na ci ger ak la muy ger ak kay muy ger te rëbbum yàlla mooy mu dàq la ci yërmandeem yonent yàlla nañu yàlla bool na moom ci yërmandeem te gërëm ñu bokkoo ci alal bi jullit bi war a moytu lu bari détournement de deniers publics bokk ci alalu sàcc alalu joo xam ne yi yaa ngi koy amee ci fen moytu alalu njuuj njaaj nag man ashana fa laysa minna yonent bi alayhi salaatu salaam dellu waxaat ne képp kuy njuuj njaaj bokkoo ci ñun naka